tribune yéenekaay bi petit palais di këru premier ministre bërki démb dafa soppeekoon doon quartier général bu waa Benno Bokk Yaakaar ay responsable yu mag yu nekk ci majorité bi ci ñoom ñu ràññee ci ay cadre yu bokk ci APR ak ay kilifa yu bokk ci cabinet politique bu président Macky Sall ñoo dajewoon ci petit palais muy ci kër premier doon fa def seeni pexe yu ñu mën a attaquer élection présidentielle yu ci yi ñoo ba l'observateur nee nañu fa lu ñu jibalee xalaatu fexe di Youssou Ndour di Sandiara di Njool Bawol Ndonga Njaay di Mari Taw Ñaan ak Mam Boy Jaaw moom Jaaw Kolda moomee sox l'Observateur ne nañu am nañuy xibaar yu leen xamal ne jot naa déggante ak Amadou Ba ci téléphone ngir ñu seet nu ñuy def ba gisee ngir toog waxtaan Tribune mel ne ku naan ñu ci xët mu njëkk ñoom la rek ñoomu nen la ñoom waa APR ñooy gérante ci seen biir candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba bi farandoom yi jàpp ne dafay gagné élection présidentielle a bokk na ci légitimité politique am gi ñenn ñi di dingat ak bët bi ko ñu bari di xool ci réew mi muy fonctionnaire bu yor ba liwu ci réew moo xam ne ñu bari ci gobar jaasi la ñu dëkke ku lakk mburu tuddub dëkk Abdoulaye Daouda Diallo mi ñu ne keroog ba muy wax wax na ba pare te tuddul benn yoon turu Amadou Ba ca waxam ja honorable député Abdou Mbow bokk ci ñuy jàppal tànk Abdoulaye Daouda Diallo journaliste ko ne na ñu indi na ci tontu lu wex xat Abdou Mbow nee na bi Abdoulaye Daouda Diallo taxawee jël engagement ne dina def kéemtalaay kàttanam ngir 2024 ñu am ca ndam loolee ba mu koy wax ay kaña taxul wax ay muus taxul muy wax victoire Amadou moo ko taxoon di wax wax na it moom Abdou Mbow ne Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo danañu gisee danañu waxtaan wax ji njiit réew mi Macky wax ci assemblée générale des nations unies ba woon ca New York wax ji mi ngi xëy di riir ci yéenekaay yu bari réew mi quotidien bind nañ njiit réew mi Macky Sall na ca ndajam ñàkkom ndox gi am ci Afrique li quotidien nañu li mu bëgg moom président Macky Sall moo di at mu nekk ñu natt lu toll ci fukki junni ñett di ko jàppale réewi Afrique yi ngir ñu tàggoo ak jafe ndox la si ne kay nañu ci discours Nations Unies soleil national ne ko tàggatoo bu daw yaram terewul journal point actu gis na ne moom Macky Sall na lool ca nganam ga ca New York waa kër Ousmane Sonko yi wan nañu ko fa biddiw bëccëg te gisul kenn ko ko taxawal kuro Macky ma ko doon jéem gaañ xaw tuuti ñu muraake ko fa Farba Ngom mi ñu dénk wàllu mobilisation ak wàllu propagande ca diaspora ba point actu nee nañu defuloon rolam ndax bokkuloon ci ñi àndoon ak président Macky ca yu nekk ci Afrique ñoo booloo ànd taxawal Pastef Africa Africa Jom Center njiitam di Alioune Tine mi ngi wax ci xët mu njëkk Vox Populi ne mbiri Ousmane Sonko ab bomb la bu ñu war a désamorcer gaz bi kalaate ci jëppal dexkale keroog ba yóbbu fa ay bakkan ak marché Mbàkke bi doon lakk yii mooy journal Tribune xëy ci xët njëkk lakk ga woon ca marché bu Mbàkke yéenekaay bi mi ngi wax ne yóbbaale na lu mat juróom-ñetti cantine gaz bi explosif fii ci Ndakaaru yóbbu na ñetti bakkan na démb ña ca faatu léegi ñoo ngi tollu ci ñeenti nit juróomi nit yi bokk ci benn famille te ñu jàppoon leen ci coowal cocktail molotov ci genn kër gu nekk ca boori lycée Maurice Delafosse sour soit xëy na di ñu ci baaxe yeneen i xibaar ki ñu jàpp ne mooy cerveau ba ñu naan ko Ousmane Fall di coordonnateur bu Pastef ci Gueule Tapée Fass Colobane yéenekaay bi nee nañu alkaati yi ñoo ngi koy wër wër gu métti abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su ne ay xibaar yu